ndax moom kii maye. kuy ñaan moom lay ñaan. kuy am moo lay may. kuy am moo lay may. ba am fa lu. ba am fa kenn am fa. am fa li am kenn ku amul lu moom. moom daan ko may. naa la danañ fa ñaan danañ ko may. nee na bu bëgg bis boobu nag. wut dana wut ilimaan joo xam ne ji. moo koy taxawu. moo koy taxawu. bis bu set. bis bu set. bis bu set. ci àjjuma ji. ndax foofee. ndax foofee. ak fii ñoo yem képp. ak fii ñoo yem képp. lépp sëriñ bi la lépp sëriñ bi la. ñu ñu ko bëggee. nee na kon nag noonu ko bëggee. ñu ko bëggee. danañ ko ko defalee ni mu ko bëggee. daan fa dem julli fa ñaari rakka. daan fa dem julli fa ñaari rakka. jëkk àjjuma ji. jëkk àjjuma ji. àjjuma ji koo xam ne kii. dana wax koo xam ne kii. mën na ko mën na ko. mën na ko mën na ko. attan na ko attan na ko. te war na koo def. te war na koo def. wasalaam. ginnaaw bi mu àggalee Serigne Thierno Mbacke Gelongal mi nga xam ne teewoon na fa. def na ci seere su am solo ci diggante cheikh Mouhamadou Fadal ak Serigne Bassirou Mbacke ibnu cheikhul Khadim. sëriñ Falilou daa jóge fii fi Touba ànd ak sëriñ Mbacke Bousso xëy ci waaj rabbi dem siyaare ji Cheikh Ahmadou Bamba كانوا بمنو سيري تو امام سي سي فلمي سي بسير الله فاك سي مورتا على فال ني سي ني راك تي تانال سي باتا سي فلون سي توبا دما في عندي ادي جن جن تا خيب كو لول سي توبا نكو جوني مود لا خيب لوكو واي ديف تيانا daana ges sëriñ Bassirou sëñ moom taalafaal ne leen lii fëli lu def gis ngeen ko ñoo koy Mbàkke mu moo yoon ma lu ci waay man nag na ko ko jàppalee ci yéen sëñ Bassirou yéen a làmb kaalaam ba mu may dus gëm kaaloo fecc ko juróom-ñaari fukki dërëm ne ca mu ne sëñ Bamba juróom-ñaari fukki yi de laa yor man mu ne ko jox ko fëli lu ñu mu joxee la mooy sa juróom-ñaari fukki million yi nga jox sëñ Tuubaa tey di sëñ asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sëñ bi mu ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. yéen sama Abdou Fatah mooy wax. yéen yi ma fi dajeel. yéen mbokkam yi fi dajeel. nga xam sëñ Muntaxa mooy suñu jëwriñ. nga xam ne sëñ Muntaxa mooy suñu jëwriñ. sëñ Muntaxa noo ngi lay seereel. lay seereel. ñun ñi nga xam ne. ñun ñi nga xam ne. dañuy tudd. dañuy tudd tudd sëriñ bi. di tudd sëriñ bi doonu sëriñ bi na nga xam ne noo ngi sa gannaaw. di di la roy. di la roy. xam nañ sax mënuñu mënuñu la mënuñu laa jot. xam ne sax mënuñu laa jot. waaye kon. waaye kon ñu fas yéene foo teg sa tànk foo teg sa tànk. ñu fas yéene foo teg sa tànk. suñu tànk ñu teg fa suñu tànk. nga xam ne liggéey Sëñ Tuubaa rek moo la. nga xam ne liggéey Sëñ Tuubaa rek moo la ñor. addiya ji nga indi. addiya dafa fàttali. dafa fàttali. li fi sëñ Basiru nekk li fi sëñ Basiru nekk ak Xaadimul Mustafaa sunu yaakaar ak Xaadimul Mustafaa sunu yaakaar ñoo tolloo lim bu fi nekk kon nag jërëjëf noo ngi la ñaanal ci sëriñ bi nga ko indi ñu ngi koy ñaanal ci sëriñ bi nga ko indi nga yàgg koo indi ci moom nga yàgg koo indi ci moom te ngërëmu sëriñ Tuubaa léegi ci sàkku te ngërëmu sëriñ Tuubaa lañ ci sàkku nga am ko nga am ko ba ñun ñi nga xam ne noo noo nooy nooy nooy say taalibe ba nga xam ne ñun ñi nga xam ne nooy say taalibe di roy ci yow di roy ci yow ñu mën a am ca loolee ñu mën a am ca loolee suñu bokki taalibe yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah alaykum wa rahmatullah Cheikh Mouhamadou Lamine ñoo ngi lay nuyu ci tour seigne Muntaqa mi di sunu njiit lim waxon rek nak la ni gëna waxat te xamne ne jotaayam bi bii ko waxe rek ni la naka jek loolu am ci yéen ci yow neena fos na yene na cheikh yu rafet jappale won seigne touba dana la ko jappale dana la ko jappale donte donte mënta yegg ci ñooñu fa kat na ba ñepp xamne loolu la bëgg neena mbolo mi fi dajé itam adina taxul ñu ñew day njariñ lo xamne xamnañ ni ku ñew fi yow jariñ bu bëgg ànd ak ñëpp ndax ñepp jariñu ci lool motax mu and ak nun dikki fi no ngi lay ñaan ci barke Serigne Touba ak barke Cheikh Maodo Fall mi nga xamne moy mooy ko gi tun wax yalla def ko nga dimbali nu ñaanal mu gudd fan ba yàgg laa liggéeyal ndax lool rek moy dimbali ñu ànd ko nee na ñu ànd ko waaye nekk na tàllal sëriñ bi ñaan bisimilah lii kon mooy ziyaare bi nga xamante ni sëriñ Muntaxa Mbàkke ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir defoon na ko ci kanamu sëriñ Mouhamadou Lamine Baara Mbàkke xalifa général des Mourides muy siyaaru cant ak jébbalewaale caabi yi nga xam ne bu ko sëriñ bi nangoo jàppal na bisu ubbi jumaa jooju muy bis bi nga xam ne ci lañu war a gàmmu ba mu dellu bis boobu di war a dëppoog bisub àjjuma fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru gàmmu dëppoo gi itam juróomi fan ci weeru mars atum moom sëriñ Mouhamadou Lamine Bara Mbacké xalif général des mourides jàpp na agsi ci barab ba laata àjjuma ji julli fa ay ràkk ñaan fa

xanaa ndokk rek. mu ne woon démb. mu ne woon démb. nun nun la tey jii. nun lay doon ëllëg. jëf. يقول للمختار